Euh, salaamaaleykum mbokki Sénégal laay laay laay Mamadou Makhtar ñu ngi fi nga xamante ni mooy Sam TV gaynde de l'actualité tey mbokki Sénégal indi leen barke ci kaw barke ku ne xam na ne Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye yal na yàlla guddal fanam may ko wér yaram may ko képp ko yàlla sàkk ci barke yonent bi sallallahu salaam wa euh, sëtëm maanaam doomam ki mu jur moo fi toog fi nga xamante mooy Sam TV Sam TV nag am gan gu mag a mag tey di ko sant yàlla suñu borom surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moom lañ dalal fi nga xamante ni mooy Sam Politique tey émission bi nga xamante ni addu yëpp moom la ñuy xaar saa su nekk Libaas Laay euh, salaamaaleykum waaleykum salaam Elma ñu nuyu di la fay hmm. ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziara jiital nuyu beeg bi si xalifa bi Seydina El Hadji Abdoulaye di ko ñaanal mu yàgg te wér di nuyu bu baax rakkam yu tëdd yi ak njabootam yu tëdd yëpp di nuyu umma islam bi nuyu dëkku dëkk bu sell bii di Cambérène mm-hmm. dëkku gàddaayu Seydina Limaamu alayhi salaam di nuyu kilifa bàyyi ñu kenn góor jigéen macha allah euh, Libaas Laay euh, Sénégal yi euh, xamuñu Libaas Laay kan mooy Libaas Laay soo doon présenté waaw libaas laay de moom ab taalibe rek la. ab taalibe rek bu jug. ngir taxaw dëkk maamam. nga mm-hmm. libaas laay amul benn nangam. Mm-hmm. ab taalibe rek daal. ki ki nga xamante ni mooy Baye Chérif El Hadj Abdoulaye nekk xalif de Layeen mu nekk sa maam. Mm-hmm. loolu nan la lay def. alors sant yàlla rek la. ndax sëñ Ablaye moom kenn ku ne yaakaaroon na wala bëggoon nga mu nekkoon sa maam. ndax taxawaayam rafetalam. ak euh, dundaam gépp islaam amul moom mu toll fii hmm. kon tey naa wayjur ñëpp la dëgg day day rafet lool neex lool mu nekk suñu wayjur ndeysaan nekk suñu maam nekk suñu lépp suñu wasila hmm. nekk suñu yaakaar ndeysaan waaw sëñ Abdoulaye dem ci euh, ba tey sa yaay jooju nga xamante ni moo doon sa lépp euh, nekk doomu Baye El Hadj Abdoulaye Thiaw Laye benn bés mu ñàkk ñetti bant sa yaay bokk ci loolu mu lay def bay libaas laay waaw sant yàlla rek dellu ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun hmm. ndax eh, yàlla bi mu duggee ci këram jëlul kenn yëfu jàmbur hmm. yëfam la jël métti na lool nag hmm. mais danoo dellu ci moom rek ndax yaay jël boo xamante ni sunu lépp la mooy sunu sunu lépp daal waaw sunu xarit xamante ni ñoo mës a dund mu yar ñu si njub ak mbaax yar ñu si lépp loo xamante ne tey jii moo moo tax nit ñi bëgg ñu moom yaay jooju doon référence ci gëm yàlla doon référence yi julli doon référence yi jëf ju baax waaw yaay ju tedd yaay joo xamante ne tey jii dañ koy ndamoo rek di ko tiitaroo ba dinay tukki te duñ ko mos a fàtte ak taxawaayam ak fi ñu jaar ak moom moo tax sunu yaay sunu xarit. mu mu yaay seen yaay seen xarit Libaas Laay ndax politicien nga. non man dama politicien. donc politicien bon Libaas Laay sëriñ la wala. moom taalibi laa. taalibi taalibi nga quoi taalibi laa. Ah. taalibi daal moom gën a daaw. Ah, taalib taalib bu ndaw nga quoi eh, Libasse euh, tey gis nañ ne dëkk bi Cambérène statut spécial la am ñetti pouvoir yow ci ban pouvoir nga bokk. ñun pouvoir kii rek ci gannaaw sëriñ bi rek. maanaam pouvoir sëriñ si nga bokk. non si ginnaaw sëriñ bi suuf sëriñ si ginnaaw ginnaaw sëriñ si. suuf sëriñ voilà léegi suñu doon positionné dañuy jàpp ne Libaas Laay euh, mu ci pouvoir religieux bi la nekk daal mais nekku ci mairie bi nekkul ci euh, affaire chef de village bi. Euh, te gis nañu tey Cambérène sëriñ si ñu ëpp doole ci ñaari pouvoir yi lépp li nga xamante ni ñaari yenn pouvoir def nañ ko te sëriñ bi valé duñ du jàll loolu mën na nekk wala mënu nekk. dëgg la loolu dëgg la ju wér dëkk dëkku sëriñ bi la. Hmm. waaw sëriñ bi moo ko sos. li fi am lépp moo ko def. Hmm. waaw moo moo fi eh, moo fi eh, Cambérène fee la nekkoon Fadiar sëriñ bi jëlee ko fa indi ko fii si peste bi comme li nekk ni mbas bi. Hmm. bi mu njëkkee ñëw si jamonoom. ci la ci la ko jël indi ko fii Cambérène. mu ko jëlee nag li fi am lépp moo ko def ànd ak taxawaay ak ak njaboot gi te doon kilifa doon ku xam te ni dafa indépendant si lépp. moom moom Seydina Issa rogaay boobu dëkk bi hmm. kon nag loolu fa demee ba tey moom lañuy continuer ci jamonoom ba tey kilifteef gi moo koy doon mooy doon lépp te boobu ba tey nag loolu ba tey ba tey gis nañ ne euh, lu ëpp solo ci Cambérène tey muy sëriñ si maanaam boo gisee politiciens yi ñoom ñoo koy def da ngay gis ne politiciens dañuy mobiliser waa Macky Sall dañuy dem ci beneen wàll kër gi waa Khalifa Sall ci kër gi politiciens yi suñ ñëwee duñ dem seeti benn euh, benn nit ko xamante ni simple nga sax da nga gis na pouvoir maire bi sax maire bi sax do deg ñu ne am autorité bu mag bu ñëw dem séti maire bi wala do deg ben autorité bu mag bu dem séti chef du village bi mais da ngay deg ne autorité bi ñëw séti si sëriñ si lolu ba tay da ngay deggal li nga xamanteni moy dekk bi el mag bo duggé ci kër jàmbur waaw fa nga séti borom kër gi d'accord lolu moy yefi lolu moy yefi waaw duggé tey dekk bu tolli kàmbare waaw dëkku diiné du gàddaay seen alimaam li gën a rafet mooy nga dem seeti kilifa gi dëgg la boo fa jógee nag doo ko seet ku kenn koo mën a seet hmm. loolu moo waral nag police yi ñëw ci kër gi di seet kilifa yi fi nekk eh, eh, gis nañ mbokki Sénégal Sam TV gaynde l'actualité Libaas Laay sang boobu màgg boobu moom lañ dalal fi nga xamante ni mooy Sam TV gaynde l'actualité mu li Libaas Laay euh, loolu dana neex def politique ci Cambérène politique est-ce que dana neex def Cambérène comme euh, saa sooy def te booloo ci sëriñ ci dara du waaw dëkk la politique dina neex def caméra ci nin ko mos a dundee dëkk la boo xam te ne dëkku diine la. Hmm. comme ni boo fu bëggee dund da ngay am teggin rek fii dëkk bi bañ politique bañ tamit euh, kuy def yooyu mais l'essentiel li dëkk laa hmm. ko rek. waaw fu nga fi nekk. ku nga fi def. waaw voilà yow gisoo ne tey li baax laay Khalifa Sall ak Macky yàq na Cambérène ci ay position nga gis sëriñ sii nii ñi ànd Khalifa Sall ñi ànd Macky Sall te ku ne xam na ne buñ fàttaliku ci jamono yi Macky Sall eh, jàppalul na Khalifa Sall ci caisse d'avance eh, tey gis nañ ne am na ñu faral Khalifa Sall de ay révolte di indi manifestation euh, projet bu fi Macky Sall bëgg a dugal ñu ne du fi jaar di manifester seen contentement gisoo loolu de mel dëkk bi mel ne Cambérène day contenté loolu yow. Ah, Macky Sall Khalifa Sall la yam laa pa jëm ay politiciens lan yonté xam bëgg dara ci dëkk bi. ay politiciens lañ waaw yeah. Macky Sall waaw Khalifa Sall. mais Cambérène du ci seet intérêt mom Cambérène du. Cambérène intérêt moo tax muy taxawee nonu wa mais est ce que quand Cambérène su fekkee am intérêt lu waral bi gis né Macky mo am privilège am opportunité am doole pour jàppale Cambérène développer Cambérène mais da nga gis ne nit ñi e yi wona ñom soxlu wuñ euh, dañ ñëw ci kër gan gi soxlu wuñ bagasu Macky Sall Khalifa Sall mo projet da ngay deg sax ñu ne Khalifa Sall mo fi indi ci projet yi ci Cambérène. ah da jël sax solo waaw taxaway rek la Khalifa Sall ba may taxaway ba dëkk bi top nim mu dëkk bi la. nim mu dëkk bi waaw Macky Sall tay bu ñëwé ñu naan kan bëgg ñu dëd xeyna taxaway la. waaw parce que Cambérène moy dëkk boo tamit man xam nga bo politicien faralu ma Khalifa Sall. faralu Macky Sall. man ben leader la am monsieur Naye Sarr doomu dëkk bi. benn parti la muy Cambérène ko teral ko fonk rek ñu fonk la ku ko fonk ñu fonk la waaw mais li baax laay loolu dana xaw yéeme ah parce que boo nee ko fonk ko fonk lu lu yàgg am ñi ne président Macky Sall dañu bëgg nga taxa tabaxal sa maam kër kër gan yi maanaam gan yi suñuy fu ñu dal Macky Sall def ko bu ñu bëgg inauguré da ngeen bañ waaw parce que xam nga taxaw miir bee taxaw ñu bañ lu tax ngeen di wañal miir bi si géej maanaam ñi daa def miir bi moo tax loolu du nekk doo taxawoon di di di waxtaan ñu état bi te état bi li ñu waxoon dëggul mais nag te defe naa euh, dafa mel ni Macky Sall yëg ko woon bi mu ko yëgee euh, dafa taxaw ni nan ko limti nañ dindi miir waaw bu bu taxul woon noonu tey Macky Sall du ko yëg bay dindi miir waaw mais yow nga ko Macky Sall yëgul ko yëgul ko bon euh, moom bu bëgg ñëw seet ci kër gi lu mu inauguré ngeen nangul ko loolu moom moo tax ñu ñu ñu yëg bu nag di kan faaw nga yëg lii ndax lii mooy sunu yëf mooy sunu lépp mooñ gën lépp sa hmm. Cambérène nekk si jàmm am lépp lu mu war a am moo ñu gënal lu mu war a am. parce que fi mu toll noonu miir bi sonal noonu ba pare indiwoon na fi lu nekk si dëkk bi. boo demee si ginnaaw miir bi am na fi daan fanaan agression bi commencé dugg si dëkk bi. yenn yëpp di tamit bu daanul am aération bu doy te xale yi dañoo dañoo bëgg géej te bu nekkee géej ñun mu nekk si kër gi du leen gis. Hmm. te avant miir bi daan nañ gis xale yi bu bu rawee daan nañ daw pour sauver mais miir bi ñu ñëwee dafa gàllankoor yooyu yëpp. amatuñu accès dafa gàllankoor lépp waaw yee hmm. tamit amuñu dul géej hmm. tey nit ki xam te ni lii mooy liggéeyam xañee rek loolu ko waaw bi ñu ñëwee ci loolu yéen yen a mayoon autorisation état yebul Cambérène ñëw di di tabax benn benn mur te consulté ak yéen sëriñ si c'est-à-dire consulté kilifa yi euh, ñëw rek dem ne xaaral ma dem ci ginnaaw Cambérène tabax benn mur kàll géej gi te consulté yéen bindoo leen si ñëwu leen dugg na fi waxtaan waaw dafa ne waxtaan ak ay mag te mag moom gis lépp mag ñi bi ñëwee wax ak ñoom dañ ñun ñoo juum juum dafa am tey boo xoolee miir bi euh, ni mu ni mu doxalee euh, naka la po kii boo amee si dëkk te dëkk bi am ci accès pour yéeg ci pour wàcc boo demee géej waaye boo demee dëkk yëpp am naan accès pour yéeg di wàcc ba mu sëf Cambérène da moo tax kon nag ni ñu waroon taxawee dëkk bi taxawuñu ko xam nga tey dégg Sénégal chaque jour naan Cambérène Cambérène Cambérène defuñu dara xam nga mosoon dégg ñuy xeex ndax ceeb a manqué wala duñ dëgg dugal wala dara lu état bi kii mosuñu ko gis ñuy xeex loolu. Hmm. lépp luy xeex rek pour suñu droit la pour dëkk bi te yenn saa yi dañ koy fàtte. yenn saa nit dañ koy fàtte. waaw yenn saa nit ñi dañuy fàtte loolu ñun xeexul ñu kenn xeexul ñu ay ay ñàkk la wala ndànk li ñuy xeex mooy ëllëg ñun ñu fi nekkee. xam nga lii ay at la fi nekk. Hmm. mag ñi buñ ko xeexee te baaxul. Hmm. ëllëg ñoo dundee conséquence. balaa ñuy am loolu nag faaw ñu xeex ko ba lépp nekk stable nekk si yoon. loolu moo tax xeex bi dara nag. d' euh, dañuy ñëw tey ci fi nga xamante ni mooy champ politique euh, ñu recevoir ki nga xamante ni mooy Libaas Laay nekk euh, sang maanaam surtout Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw la fi nga xamante mooy Sam TV Libaas Laay politiquement dañ gis ne Seydina na Laay maa ngi koy nuyu sali au passage Khalifa Sall maanaam Macky Sall autant de moi ba nekk honorable conseil des collectivités Idrissa Thiaw Laye eh, moom ku ne xam na ne xalifa Sall la saa su mën nekk yow eh, Libaas Laye lan ngay def en tant que ñoom nekk sa papa mm, ñoom kii faral kii kii faral kii yow lan moo sa eh, fan nga taxaw. man moom xam nga am nga foo dem ñoom fës na ba ñëpp xam ne man nag politico. yow politico. àdduma ah, man la benn parti la muy Cambérène. benn parti nga am muy Cambérène. sama leader sa leader mu nekk Seyna Issa Rouhou Laye. amuma keneen. képp ku xamante ni commissaire yaa ngi teral Cambérène rek ñu ànd ci loolu. mais mais Libaas lay far nga yow amoo foo far. faruma fenn. faraloo mouvement leader politique. faraluma kenn. Seydina Issa rek nga faral. maam Seydina laa faral ko teral nag ma faral ko teral nag ma loo mën doon nag bëgguma nga nekk présent nga nekk kii ci am. d' bu ne Khalifa Sall andi ne ko doone ko jërëjëf. merci beaucoup suñ ko defee lu ko métti nga jooyle loo ko loolu sax def Khalifa Sall. doo doo dégg ci yooyu kon far. far waaw. même Khalifa Sall sax même Macky Sall sax. jërëjëf. waaw ah. képp ku baax dana la koy wax. xanaa dëgg mën la képp ku teral maam si mën la jërëjëf. Hmm. képp ku teral nag a doon nag man sama jàpp sama ñaam. ci li a juntoo ak koo mënta doon. waaw tey ban message nga mën a jox ban ban nga jàngat nga gis ne sëriñ dañu dañuy fi eh, eh, politiciens dañuy ñëw. di am ay promesse eh, duñu respecté seen engagement bu buñ fàttali ko ci jamono yi passé Cambérène demoon na war a am stade Abdoulaye Diouf Sarr ñëwoon na fi liggéey fi ay mbir ba sëriñ ci dajee ñu waxtaan tënk mais dara gisuñ ko nan yéen ban position nga am ci en tant que yow bi nga xamante ni amoo koo faral ba tax politiciens yi di ñëw di ndax sëriñ ci rek. waaw ah, man de xam nga kooku ñoo tudd nu tudd sax. Abdoulaye Diouf Sarr. waaw moom xam nga du ñu bëgg di wax suñu koom tamit du ñu këfin mais boo ñëwoon ci maire bi gisuñu ko benn affiche su ñu si bind pour stade bi ba ba sànq fi moo tax gëmuma politicien. gëmuma politicien waaw buy ut si. oui loolu lay wax. mais bu paré do gisati. légui né ban matukaay nga jël ci loolu parce que sa su nek rek ñu dox ci kaw Cambérène. ñun jeunesse bi. paré non ci lepp lépp gisé gisee Cambérène nak du laak ben benn dëkk nax bi mo yag nax boobu la ñuy bañati ñu pour ñu nax ñu ko képp ku ñuy nax tegg la dalé gisone ne ba tay jafé jafé bobu mo waral parce que Cambérène amul représentant manam ci gouvernement bi. ba gis na toujours ce discours da ngay wax eh, Macky Sall fala ñi mam ngay job mi mang ko koy au passage eh, mel ni daal de leen écarté wala yéen a xam nga da ngeen euh, doylu seen i seen i seen i ndaw lu war xanaa gis jafe-jafe yi dafay politicien di ñëw toujours di leen di nax. man Cambérène laa gëm nitu Cambérène laa gëm. ndeysaan ak la maa leen doyloo nag ñooñu ngay wax noonu muy gasu ñu koy nuyu di tàggat yonente bu sallallahu alayhi wa sallam sunu maam. Mm. tedd boobu ñu ngi koy ziar bu baax. Mm. di maam Guèye di avocat di sunu yaay ak yaay. Mm. ñëpp moom ma lim lim ñëpp APR yi fi nekk. mais Macky Sall bëgg nañu jo chaque jour boo yaa may dégg ma kay wax. oui bu leen fàtte ñoom la ñu am ñoom lañ tiitaroo ci kanamu Macky Sall. Hmm. tey bu doon dem si Macky Sall te àndul ak ñoom bëgguñu ñooñu bu leen falee ñun ñëpp lañ fal. Hmm. ñun waa cadre hmm. bi. ñu xam ne ñu cër si gouvernement Macky Sall. am nañ cër ci gouvernement amuñu si cër. amuñu waaw ñooñu bu leen fàtte ñun ñun lañ fàtte. mais est-ce que yaa ngi fàttaliku bi Macky amee premier ministre ci jamono yooyu. fal na leneen ñaari chargé de mission mais ñooñu tay lan lañ apporter Cambérène lu du dem nañ ci palais bi ñu jox leen 20 millions francs CFA ñi ñew c'est do sen patio loolu mooy représenter Cambérène. parce que sen xel mo toll foofu. sen xel mo toll foofu est ce que lolu taxul ne Macky Sall découragé si ñoom ñi représenté Cambérène. ñaata li def nekk ñaata la li man. bëri nañ. waaw léegi bu fi doxul la nga jël fayam ñoom ñoo fi nek pour affaire te boo baye koy jël. man gëmuma ku jógee Yoff ñëw defarul ñu ko Ameth. waaw lu tax yow nga bëgg tànn waa APR ñi ñeneen ñi. waa PS nekk fii waa PIT nekk fii. képp moom mooy Macky mais yow da nga tàmm da nga tàmm. non Macky Sall ñi ànd ak moom. tey ñoom lay fal tey pour nekk si benn parti faa nga ñëw ci moom la fa ñu fi nekk mooy waa APR pour war dem si Macky Sall tey ñooñu noonu am. te et puis di Basse Kane sa déclaration bi mu koy def noonu. loolu yàgg nañ ko di def jamono yooyu ci appel à la jeunesse en 25 décembre 2018 bi ministre temps yow Pape Gorgui Ndong ngi nekk ministre ci appel à la jeunesse amoon na jëloon discours devant ministre Pape Gorgui Ndong ne dañu bëgg nga waxal ñi président Macky Sall pour mu falal ñi gazo mi taxaw yàgg wax toujours nga ci doomu Cambérène bi jël ne falal ñi diw falal ñi diw pour lan loolu man de ma gisoon Macky Sall toog ni mu toog moom laa ko njëkk a wax donc hmm. dama gis gazo ba muy ànd ak hmm. yàgg na ba mu Macky am fi kenn tey boobu xumboon na fii ñëpp a nekk si nguur moom mu nekk fii wéet tey defe naa nit bu la ànd ànd ak ba nga toll fii du question ay da koy da ngay koy gis rek nga mën a dund ak moom ci ay ay nangam nangam da ko war a fal jox ko pos man dama gëm gazu ci mu Macky Sall fal ko chaque jour lii nii boo gisee gazu laaj ko chaque jour dama koy wax damay xuloo ak moom dafa war cër ci ci kii bi ci ci yi jàll yëpp da si war a cër. te mm-hmm. Macky Sall day fàtt mm-hmm. loolu mooy dëgg. da leen fàtt ñun li ñu bëgg mooy ñun fal suñuy nit. fal na doomu Cambérène falati ko. kan ak kan Seydi na ko yàlla yërëm. Seydina Kane waaw ay Seydina Kane. kon bu mu fàtte Seydina na ko fii. non euh, Assou Ndiaye sang na ko fii. ay ay falu. <laughs> mais xam nga li mu bëgg ñun Cambérène du dëkk bu am de bàyyi xel. bu a léegi tey jii nii euh, ma ndax maam Guèye Diop moomu noonu. Euh, bi nga yaakaar na Macky Sall man na ko war a fal war na ko war a fal euh, gazu ma ndax yaa ngi préparé jàppale leen ci élection municipale yi. non man xanaa dëggu man politique ma. élection yi bu mais mais mais mais loolu non non non li euh, libaas laay sang bi taxawal da nga proposé président Macky Sall ne ko falal jiw. wan nga mhm. tànn na nga am nga foo far. waaye. ok ñaata woon la ñaata woon la ko waa Cameroun jàppale mu amaat mandat. loolu bëri na. waaw yéen léegi ñun est-ce que bu bu amee jàll élection yi dañ mais yow mais yow taalibe nga sang nga. yow yaa dañ ko gëmu. xam nga ñun dañ dem ba weddi ko gëmatuñu ko 100 pour Macky Sall. Macky Sall gëmatuñu ko. xool li fi jàll yëpp. ndeysaan. taxawaay bi am si si ñun. mais Macky def lu rëy Cambérène. lan kër gi chantier yaa ngi dem travaux yaa ngi dem. xoolal xoolal kër yi mu kër yi def si si kër kër diine ak kër yi def Cambérène xool est-ce que kër diine yi lu mel Touba mobiliser nañ jàppale ko ci ci politique bi da ngay ci xalifa général bi euh, ci Covid 19 bi yëkkati na 200 millions na ko defal nangam nangam du Laayeen du Ñaseen du Tijaani ñoom joxuwuñ xaalis. ci kaw Seydina Baye Abdoulaye Thiaw xam nga xalifa général mu génn na joxe. 200 millions Serigne Abdoulaye dafa génn bëri jënd koy dund. 30 millions francs CFA. ko si ku ku képp ku <laughs> koo xam te ni yaa fi nekkal sëñ Ablaye mun la joxu malaka ngir laayal jullit ñi laa ko jox Sénégal gi yëpp <laughs> bu ko bu ko neexoon wax ko mu fépp hmm. tey xaalis ban jox Macky Sall lu mu ci def tey li sëñ Ablaye def loom am solo la. solo la. ndax nit ñi dañoo soxla dund mu dem si même instant bi tas ko si dëkk dëkk Sénégal gi yëpp jox leen ko jàppale leen ko si xeex bi ci ci ci feebar bi kon defe naa. tey bu ñuy lim noonu noonu bàyyi xel sëriñ nga gis ne yeneen kër diine dañuy jël sax dañuy dañuy mel ni dañuy joxe consigne euh, bu ci mel ni tiwaawoon euh, xalifa bu mel ne joxoon consigne jàppale leen Macky Sall wala sax bu ñu ko jàppale dañ si geste xam ne Macky lañ bëgg ñu jàppale leen. loolu gis nañu Cambérène taxawul ko parce que peut-être suñu bàyyi Chérif El Hadj Abdoulaye euh, am na yoo xamante amul temps boobu waaye bàyyi libaas laay pourquoi du fësal boppam jege ji sax gouvernement bi wala wane nañ ñi jàppale Macky Sall daal. non sëñ Ablaye tollul ci fu muy ñun kenn takkuñu si bakkeem si jëm laay doxul noonu chaque jour day am liberté ci nit ñi doomam sax du ko liggéey fii ngay def da koy bàyyi tey taalibe yi boo leen ne ànd na diw mooy tey commencé ñu leen tënk te te yàlla ne laaj naa fi diin forcé ma kenn diine ji sax yàlla forcé ma électoral Cambérène moo tuuti maanaam nit ñi xam ñooy votel fal di fool ni bëriwuñ fi tax état considéré ah, Cambérène dëkk boo xam xamante ne fu laayeen toll lu ko xoos xoos laayeen yëpp. mooy capital bi mooy dëkk seen aliment. yooyu du yooyu de. du poids électoral quoi. dëkk la boo xamante ni tey dëkkul laayeen yëpp la laayeen bu bu bokk fu laayeen nekk ci àdduna bi tey boo xoosee dara Cambérène ñu gis laayeen yëpp manifesté wu. kon nag bul xoolee. xam nga xam ne politicien bi politicien bi du koy may ndam. lu koy may dem ci lay dem ci lay def jaral na koo ne yow xam nga loolu. da fekk bu ñëwee tànn Idrissa Thiaw laay xam nañ ne jeunesse bi moom lañ àndat. lu tax ñu ne tànn Seydina Issa laay parce que jàpp nañu moom mooy euh, am kàddu kër gi nekk fi doom ji taaw fi mais da ngay gis ne ñoom ci ñooñu la ñuy dem duñ dem ci ñoom ay libaas laay gis ne libaas laay amagul mbooloo bon politicien gisoo ne lu fekk ki dëkk bi wala comité bi am am poids électoral bu diis moo tax ñu def ay investissement gisoo noonu yow. am wala mooy leader yi ñi nga xamante ni mën nañ ko votel ñu ne cent mille voix quatre cent mille voix fii ñu ne cinquante wala soixante ku nit ñi topp oui ñun tey buñ buñ bëggoon suba fii garage ba fii fees del dañ def man noonu ko tey buñ oolee dëkk bi ndax dëkk bi suñu leen oo ci lu ñàkk weer saa yu leen ñu wuyu kon nag def naa li li ñuy tuddee mbooloo du mbooloo hmm. fii dëkk bi boo ko defee dërëm fa laa nekk dalee bàyyi xel hmm. dëkk bi koo toroxal féete ginnaaw koo mën a doon dëkk bii dafa am secret. dëkk la. Euh, euh, lakk ñu fi jaaroon. Mhm. ci président wax nangam. dëkk bi mais même ah. dëkk nga xamante ni mooy commune bi sa employé Macky Sall moo leen di fay. Mhm. su employé fayul ci nii doomu Cambérène di liggéey ci centre de de Cambérène bi liggéey ci mairie bi. employé président Macky Sall moo leen di fay yeneen maire yi seen maire yi moo leen di fay. Mhm. voilà Cambérène amul koom-koom pour fay ay employé am loolu lay wax ci loolu. est-ce que lu taxul politiciens yi yab leen. non découpage bi ñu def découpage bi ñu def bi ñu def. Ah, ah. Cambérène croisement la yemoon. croisement Cambérène. waaw ah. tey am nañ ay lom ten bu ñu ko bëloon Cambérène Cambérène na fay ay yëfam découpage bi laay toppee Macky Sall pour léegi yow kan nga foog ne moom war a porter combat boobu ban jaamu yàlla wala balay représentatif est-ce que Cambérène waru am député dem jooyloo ci l'Assemblée nationale. man yow yaa ko nar a porté. exactement te xew parce que découpage bi bu ma fàttali ko ci mardi bi passé nii dem nga yow Libaas euh, Laay. Euh, yow ak Libaas Kane ngay dimbale mécanicien yooyu nga xamante ni dañ leen del di décrypter. waaw foofu Cambérène la. foofu mooy Cambérène lu tax ñu ñëw fi ñu waa Cambérène ko moom parce que foofu yëpp si Cambérène la bokk suñu toolu maam la woon ak suñu toolu di bàyyi. ñoo fa nekkoon ba tey ñëw fa di di bay ñu fa des ñu ndox mi nangu ñu dem nangu ko. waaw te këyit googu am naa ak suñu kër këyit Cambérène. waaw partie boobu moom la Seydina saa joxoon Seydina ma jox ba ca ba ca <laughs> boo génnee fa mu dem ah, attends Libaas dafa am lu xam te dafa lent lënt waa Sénégal yi dañuy wax ne Cambérène benn titre foncier moo fi nekk mooy sa parrain mooy Seydina Issa Rouhou Laye waaw mais xanaa titre foncier bi dañ ko limité déedéet fan la co fan la léegi limité wuñ ko ñan ñoo limité la toll fan la xam tey sëriñ bi euh, fi Cambérène su Fadia Guédiawaye ba croisement Cambérène ba ca naa ba fële unité xam nga loolu yaatu na. waaw wàcc bay àgg si yoof noonu te lépp si Cambérène la bokkoon. Hmm. xool Cambérène di mu toll. ci titre foncier bi la bokk. waaw ba vingt six yëpp. si Cambérène la ah! bokk. ma tey su sunu xalifa bu tedd boobu si sunu bàyyi sunu maam Seydi Thiaw. bi bi bi Dakaru inondé moo ko génne jox ko kii Senghor jàppale ko génnoon ay ay malade yu bëri pour fay ko mun ne déedéet sama maam waxoon na yàgg na sàkkani sàkkati gan yaa ngi ñëw tey Cambérène tey li mu defal Sénégal. Hmm. Sénégal def delloo ko. sa président bu toog ñu wax ko yooyu yëpp ma lay wax nii kayit laa këyit lan yor. këyit gën këyit gën yor man moo tax maire boobu nekk foofu xam nga mu tudd. na bàyyi xel si sunu njaboot yi fa nekk. bu leen laalee ñun lan laal ñu waa Cambérène. d' accord te bu leen laalee dañ dañ xam ne laal nañu waa Cambérène. léegi lan moo waral Libaas Laay euh, tey. ñu xamante ni ci kayit googu dañ dagg maye ñu dagg maye ñoo gën a organiser ko ñu maye du waral loolu te boo demee ci Parcelles Assainies am na tali dafa jaar ci yoon am lumière am lépp mais Cambérène dëkkin bi dafa doy waar mën a amul accessibilité. dëkk bi ah ñoom ñoo ñuy soroon rek boo xoolee tuyau bi boo xoolee yi fi am yëpp fi lañ ko indi désordre bi fi am yëpp ñan la du ñan chaque jour ñuy xeex pour. defar Cambérène loolu moo tax ñuy génn si presse booba tey pour lan la pour pour Cambérène dellu fa mu nekkoon ndax Cambérène bokk na si village njëkk am tali. Dakar. dëgg la jamonoy Seydina Issa def fi école def loo xam tey jii amul loolu dëkk yu bari. kon nag tey ñoo njëkk organisé. Hmm. lan mooy yàq organisation bi. Hmm. léegi daanaka libaas laay libaas laay yàlla su defee nga nekk député à l'Assemblée nationale. mën nañ wax ne découpage bi dañ ko réviser et tew bi nga xamanteni yag na nek di góom ngeen ko mësa di joy te amagu len ben satisfaction ba légui di sali au passage si dek da ngay wax ci loolu est ce que loolu paré nga pour porte combat boobu xam nga ni ci kanam tew bi da fay joggé tew bi fay joggé da ngay dindi mom est ce que foogoon ne yéen lu tax ngeen attaquer won mur bi mur bi mo voilà mur bi joggé na fi joggé na fi mais amna lu gombu gëna graw a moy tew bi te yeen mësa nga xex dal daal boo vrai waaw bi mu ci miir bi. do djuba ci tuyau sulli wat ko. ci lan def ko fa de presse mo defon defoon géej. wax ak adina bi ñu xëyee si la ñu recevoir man ak directeur bi ma lancé la maa ngi nuyu ñu waxtaan mu jox mo 24 mois pour tindi tuyau bi pour defaat fi pour changer ko yóbbu ko fanke bu yóbbu. ndax mo doon sun deuxième combat am am nañu ko porter nak muy si dëkk mu ngi leen nuyu bax baax seen taxawaay. rafet na ci dëkk bi ma sha allah. yàlla yàlla fay leen fi taxaway mais ñun duggoon nañ ci ànd nañ waa si rek dem ci ñooy continuer liggéey bi dafa war ne ba tey ñu ngi ci combat bi fa lañ jëm pour pour tuyau bi jugee fi. Hmm. ndax sëriñ Ablaye moo na fi jug. te lu mu wax dañ koy def incha allah. d' accord euh, dañuy ñëw ay quelques minutes mooy depuis la fin dugg ci beneen point bi mooy gis nañ ne Agirout moo yore travaux yooyu di nekk ci VDN bi gis nañ ne ci teenu maam Seydi bi. pare na pour joxe 50 millions pour jël en charge mais dafa melni ni juróom fukki millions yooyu. cinquante millions. waaw 59 millions donc na nga ka jàngatee. waaw fan yi ñu maa ngi oote depuis nak maa ngi oo ñi directeur bi yoron école bi. waa Kayor ba ba tey maa ngi ci pour ñu lay ñoo waxtaan. ndax ten bob delu sen ay saal kenn moom. kenn moomul ko waaw. lu ah. ni mu doore won masque taal doore woon dajale li am seen ca ñëw àggale seen kan moko agalé def fi macha allah yàlla ko yalla fay lool amin ya euh tay ji mo mo am ay tak-tak ci la ci wa azurut ma azurut bok na ci ñi ñi ne nan tey xaalis bi bo mu gëna leer ñu man ko def ñëpp tok cambreen <laughs> tok ñu xam fi li li lañ koy def ci li lañ koy def ak ndàngam ndax bala ñu koy def xam ñu la ndigal sëriñ bi hmm. jox ndigal ñu indi ko pala bi tek li ngeen bëgg def ñu ko mëna mën a defal. Mhm. lu xé rek nañ ko jox diiw ndax ñoo fa nekkoon déedéet. defal noonu man de ci combat bu la nekk. cinquante millions yoy 59 millions yoy doomu Cambérène dañ koy lacc ñom pour ñu défar ko seen bop té Ajurut bëgg def affaire bi bëgg ko défar bu seen bop lu waral lu waral. Cambérène sa amna droit ni jox leen ñu défar té amna ñu ko mën wa ñen ñoko wara lacc ñen ñoo wara lacc lolu parce que sëriñ ci ñoo wara lacc wala moo tax man la. oui bokk ci ñu ñun pour ñu téye ko maanaam ci ndigalu sëriñ par mu ko defee nag ñu mën ko yaatal pour a euh, defar ko bu fekkee azur sax mën na ko defar mu defar ko pare jox caabi ji lépp mën a nekk. lépp mën a nekk lépp mën a nekk d'accord nañ ci yëpp am nañu si benn intérêt. Hmm. yaakaar nañu si dërëm tamit. Hmm. lépp rek teel la boo xam te ne Seydina Issa moo ko tànnoon boobu dëkk bi. beneen loolu da ngay suqat. jërëjëf euh, beneen bi mooy gis nañ li baax laa yéen mouvement yéen jeunesse bi souvent da ngeen di wuteeg mag ñi mag ñi dañuy wax lii ngeen ne déedéet lan moo waral loolu ci Cambérène. dëgg la sax sax bu ñu wutee mag ji rek après mag gi ñëwaat ni juum na sax bu ne wutee rek mag ñi ñuy ñëwaat fekk si leen waaw ah, ah, parce que moom daf ñu dëkk bu fa nekkee euh, daa am ñu mu laaj tey boo bëggee far ba pare bëgg xam nga dëkk boo fa nekk pare nekk yenn kilifa ba bëgg far boo ko defee ñooñu bu bu defee lu yoon su ñoo wax ñun ànd ñoo état waaw ñun dëkk bi àndal. lépp loo xam te ne du dëkk la pare na pare ngeen si lépp loo xam te ne du yoon nag day taxaw jàpp jàkkaar ñoom buy ba mu saf hmm. waaw loolu moom dafa mais day gis ne Ablaye Diong day xewle Salif Diallo day xewle Mame Amadou Samb day xewle Liba Seck dafay xewle euh, Libas Kane dafay xewle Mame Gueye Diop dafay xewle Gazo day xewle ñen ñooñu kan ñoo sa candidat ñan nga bëgg ñan nga kan kan la Liba lay faral waaw faral faraluma kenn ci mairie bii nii élection 2021 yoo nañ ko maa ngi xool yaa ngi xool ki nga xamante ni moo doy Cambérène bis bu ñu xam ne kii la mën naa génn jàppale ko incha allah. mais léegi yow est ce que d' accord nga ma amul sama amaat troisième mandat Libaas Laay. Ah, est ce que c' est normal troisième mandat. non damay laajte rek. waaw damay laaj ba xam yow en tant que yow. waaw journaliste est ce que troisième mandat c' normal. loo xam te bu yoon jarul ngay def. léegi léegi Abdoulaye Abdoulaye ma ko defoon. waaw am ci ndam. na si Macky Sall bàyyi xel bu baax. pour troisième mandat Macky Sall. ñu ko mos a def rek amuñ ci ndam. ah. gis nga ñi ngay àndal bu nga dugal ci loolu. est ce que jàpp nga ne Macky Sall mos na def dara ci mbir te amul ci ndam. non tey xam nga tey man nag Abdoulaye Wade tey bi mu laajee troisième mandat bi doole gi mu yoroon ak xaalis bi mu yoroon sa gëm moo ko amoon Macky Sall woon na tey bu baax xolaat bu baax gis nga ñi muy àndal seen intérêt la ñuy xool. mais léegi opposition bi jë eh, nañ maanaam Ousmane Sonko ay maître Moussa Diop. jeex na eh, opposition bi jeex na léegi ay bu. bu leen xeeb non bëriwuñ. ñi dem dama pare moo tax ñu dem. comme ñu fekk Macky Sall dañoo pare moo tax ñu dem. moo tax ñu dem. Eh, te léegi amoo kenn kenn kenn kaale daal ku li baax laay faral ci mairie Cambérène bi man ndax yow ti bëggoo nekk maire Cambérène. non non parce que man man daal taalibe Cambérène laa bëgg a nekk. taalibe mais nekk pare nga pour nekk député. non taalibe Cambérène da kuy xeexal Cambérène. non député à l'assemblée. député ak lépp laa acam lépp yu nguur àddina rek jox nañ ko. jox jox nga jox nga leen ko. ñu ñu ngi si dëkk bi di di liggéeyal seen ay. léegi nag eh, maam Amadou muy toog ak kuy toog. léegi noo jisee gestion maam Amadou Samb bi. Ah, mais Amadou mu ngi def mu mën. waaw mais tamit am lu des lu bëri. sama xarit la waaw. Amadou Samb bu nekk laa koy di wax sama xalaat bokk naa si li nga xamante ni mën naa ko heure moo neex wax sama xalaat si dëkk bi dëkk bi li mu dese dafa bëri ñu màgg dafa bëri chaque jour ñu waxtaanee. ndeysaan ndeysaan. man amuma kenn ku ma àndal lu dëgg ak bëgg Cambérène. man ndax Cambérène suba dana neex. day neex kay. day neex maanaam macha allah eh, fa doon jëm moo tax muy xeeñ nii. ndax liy xeeñ neex lay xeeñ. ndax jeunesse bi fi nekk am na am nañ seen euh, benn gis-gis bu am ci Cambérène. Mm. bëgg nañ Cambérène yaakaar nañ Cambérène am na loolu Cambérène. Mm. moo ñu gënal dëkk bu mu mën am ci àddina. Mm. dañ nga fonk lool képp ko fonk nag bay ba nga préparé ses bagages génn. jërëjëf léegi dama sa kàddu gu jig mooy Baye Chérif El Hadj Abdoulaye laa bëgg nga tëjee waxtaan bi loo xam si sa maam. sa loo ci xam. sa loo mun a wax loo mun a jàngale gars yi mamam maam maamam bi nga xamante ni mu ngay dund nañ déglu libaas laay mu wax ñi kan mooy mamam lan la ci mën a jàng dal sëñ Ibrahima daal maa ngi wax ci moom ni ku naan defar la waaw tax mu jël njabootam gi yëpp xool Sénégal tuddee nit ñu baax ni ci moom islam musta yàqoo ci defar rek la nekk woon ci dëkk yëpp amul képp amul ku nekk Sénégal te amul ak moom yow ak jàmm kon nag loolu mu daan dox tey nan ko continuer Serigne Ablaye appel danaan jot am lu appel ñu toog tàntam ñëpp toog mun jox leen ma murit ñi ci ñaan xaarir koy def si dëkk bi instant bi koy si àddina kon nag ko jooju mu yoroon pour defar maa ngi maa koy wax ñëpp pour ñu bàyyi ci xel képp kuy leader na nga na nga gëstu Serigne Ablaye ndax doy na référence àddina ak laaxira waaw ci jëf ju baax ak wax ju baax. macha defar rek la doon def moom Serigne Ablaye moom la moom la. ànd ak Sénégal moom la noté Sénégal dafa dugg ci benn jotaay fekk maam Abdou toog mu ñëw toog ci ginnaaw ñu ne ko Abdoulaye Thiaw ñëw na mu ni na egg si bu ñëwee toog maam Abdou ni ko Abdoulaye waxtaanal mu ne ko bàyyi foo toog amoo fa kàddu maam Abdou juux tudd li ab Abdoulaye bu islam yëpp toogee boo waxul am nga islam jam na la lu tax maam Abdou waxal parce que sëñ Abdoulaye mu daan toog rek islam yëpp day bëgg. kon nag tey loolu laa leen indil Serigne Ablaye moom moo daan bégal islam daan bégal képp koo xam te ni yaa ngi daan wax ashadu an laa ilaha illallah kon nag noonu roy Serigne Ablaye si defar ak jëf ju baax wax ju baax. jërëjëf mbokk yi kii moo doon libaas laay eh, ki nga xamante ni moom mooy say Baye Chérif El Hadj Abdoulaye Thiaw mooy maamam muy actuel xalifa général de la yàlla na yàlla guddal fanam. Eh, yoo ko eh, gudda fanam may ko wér gu yaram may ko lépp lu mu euh, may ko ci ay ndoomu may ko ci ay jarbaatam may ko ci communauté am may képp ko xam Baye Chérif El Hadji Abdoulaye Thiaw Laye mbokk yi lii leen indiwoon fi nga xamante ni mooy Sam TV euh, gaynde de l'actualité ci beneen numéro ci beneen semaine merci beaucoup